mbokk yi borom naaru góor si na kii tax gannaaw sunu borom bi seen aajo di saafarawu di faju ci diir yu gàtt kooku mooy kan mooy Seydina Ousmane Ndiaye borom naaru góor grand marabout di borom baatin borom xam-xam ak borom xalwa Seydina usmaan Ndiaye yàlla may na ko mu mën a faj yenn xeetu feebar yu demee ni daaxiliya di ay jàngoro biir estomac ulcère ballonnement hémorroïde diabète ndoxum siti ak néew kattan gi waral tuuru naaru góor Seydina Ousmane Ndiaye yërmande gi mu am ci askan wi moo waral mu fekk si leen ak xam-xam bii ko sunu borom bi may ngir saafara seeni jàngoro rawatina jafe-jafe yi ñu jànkonteel ci biir néegu sëy looloo waral turi naari góor Seydina Ousmane Ndiaye mi ngi leen di yëgal ni naari góor garab la buy faj di yokkaale puissance maanaam kàttan moo xam fu seeni at mën di tollu nag ak bépp feebaru suukar bu nekk ci seen yaram Seydina Ousmane Ndiaye naaru góor borom xalwa borom kurus mi ngi fii ci Nord Foire à Dakar arrêt 34 jàkkaarloog terrain de basket bi bu dee Kaolack nag mi ngi jàkkaarloog banque CBAO bi Mérina ci wetu daral bi mën ngeen a jokkoo kabineem ci numéro yii 78 582 64 54 wala 76 019 19 jërë ngeen jëf mbokki internet Allô Sénégal gannaaw bañ leen nuyu lu ni ngeen di toppee suñu chaîne bi ngir informé wu lépp xew ci mi ak ci sank di jours dañ koy dore ak baptême bu Papis Xarañ Lo moom nag ñu gën ko xam sax ak mbër mi di Modou Lo moom nag da doon ref euh, rek lii di ngénteem ci loolu nag gis nañu présence lutteur yu bëri ci biile bis moom Papis Xarañ Lo nag daal di am mbégte ak contentement bu baax a baax waaye nag surprise ba nga xamante ni sax dal na koy am bokk na a ci teewaayu maam Thierno borom daaru daal di koy defal surprise rek ñëw ci biile baptême loolu nag daal di neex lool kii xarañ lo ba sax muy rek jooy ci mbégte ma nga xamante ne daal na koy am rek ci nii ñëpp ñëwee rek daal di wuyu si bisam bi bu ñu jógee ci loolu ñu wax ci anytime bi nga xamante ni sax daanaka wute nag yenn anytime yoo xamante ni ñu ngi ko doon gis fan yi bii nag mu mel ni kii soxna si ko def nag dafa daal di rek def lu exceptionnel moom anytime ba nag a dina koy def ak i xasida a xasida a di defee rek bii la anytime mu daal di uteeg loola yi nga xamante ni sax moom lañ doon gis jamono ji a loo xamante ni tamit ñëpp daal nañ koy ñaawlu waaye nag bi a mën nañu wax ne bii ab exemple la rek ci jigéen ñekk nañu jëlalee lii di a moom soxna si nag ay jàngub xasida la daal di def li ni mel wax ci leneen anniversaire bu ndaxte kii di Aïcha Koné nag daal di nay rek def surprise wane tamit amitié ba nga xamante ne mu ngay dox rek ci gonek seen petit gàlle loolee daal di rek ñëw euh, fekki li ni mel ñu daal dund rek ambiance ñoom Aïcha Koné ak kii di ndaxte wax ci la reine du Jolof band di Viviane Chidid daal di nay affiché wu rek daal di wanewaat taaram bu baax a baax gannaaw succès foofa ca Olympia moom Viviane Chidid nag réapparaît daal di rek publier ay nouvelle photo ci page am Dieyna Baldé mu ngi doon fête anniversaire am ñu ngay gis nag cliché nga koy partager rek ak internet yi ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo safoo rek di topp euh, kii di Dieyna Baldé ci ay page am euh, ci noonu nag mu daal di koy célébrer rek en toute simplicité euh, defi photo rek publier ci page am ñu daal di wax ci la belle bu ndaw mu nekkoon tamit ku mbokkoon ca seen Petit Galle moom nag jamono ji sax mu ngay suivre carrière solom gis nañ nag son ba nga xamante ne wala sax vidéo ba mu daal di génne rek moom gannaaw succès boobu nag ñu ngay gis rek ak euh, photo ya nga xamante ne daal na koy publier moom bu ndaw nag jamono ji euh, mu ngay suivre carrière sulom comme ñeneen ñi nga xamante ni sax ñoo bokk ci seen petit gàlle niñ koy defee ñu daal di wax ci complicité bay dox ci diggante One Lyrical ak sa femme di Leina ñoom nag gannaaw seen baptême bi ñu daal di def rek célébré ko mu nekk baptême royal ñëpp daal di ñëw wuy si leen nag daal na affiché wu ak seen doom ji di Mohamed moom One Lyrical Miracle ak ka nga xamante ne moom moo di Leyna a Vaz moom mooy la femme de Bass Thioung gannaaw nag coowal divorce ak yi ni mel ak sax lañ doon a tudd rek ci digganteem ak kii di Bass Thioung moom nag gannaaw mu daal di affiché rek mu mel ni waxu ci benn yoon ci li dox rek ci digganteem ak Bass ak coow la nga xamante ni sax ñu ngi ko doon a dégg ci li ni mel fàtteel la ñuy gis noonu la femme de Ngaaka Blindé s'affiche lors d'une cérémonie familiale moom nag nag daal di am rek complicité bu yaatu ak ñii di ay gorom moom Fatel nekk soxna sa Ngaaka Blindé très joyeuse ak tamit jàmm ja nga xamante ni sax mu koy woote rek moom la ñuy gis noonu rek ci familial familiale moom Fatel garde toujours le sourire daal di rek am complicité bu yaatu ak ñii di gorom abinduur jamono ji mu nga ca diwaanu Makka lool nag ngir amal umraam moom la sœur du roi du mbalax abinduur jamono ji nag ah, mu nga foofa ah, di amal umraam rek ca dëkk bu tedd ba ah, di Makka ñu daal di wax ci beneen chanteuse muy Guigui moom nag mu ngay féete vingt sept ans moom Guigui nag affiché wu rek ak foto ya nga xamante ni sax daal na koy publier rek ci ay comptam ak yenn ci ay commentaire sax ñu nga ko cay lire rek ñu koy souhaiter rek joyeux anniversaire moom Guigui nekk ab chanteuse soxu bébé daal dinay defaat retouram gannaaw ginnaaw mu daal di rek euh, absente woon ab diir bu yàgg gannaaw nag dajeem ak kii di Mbaye Lambar moom nag ñu ngay waxtaan rek waaye nag soxu kàddu ya muy dénk mbay rek d'un ton taquin mu nga koy wax rek naan ko dafa nekkoon en état moo tax kenn gisu ko waaye nag dellusiwaat na. Fa Aidara la tiktokeuse moom la ñuy gis noonu en mode jongama moom nag très bien habillé moom Fa Aidara a publié ci ay comptam rek ñi nga xamante ni sax ñoom ñoo safoo di ko topp ci ay page am apprécié bu baax baax rek la nga xamante ne moom moo di ma moom la tiktokeuse Fa Aidara ñu daal di wax ci entretien exclusif bi seen chaîne Allô Sénégal amal ak kii di Serigne Ngagne loolu nag mu ngi jëm ci yenn ci ay dérive yoo xamante ni sax ñu ngi koy nemmeeku rek di eh, milieu eh, culturel bi eh, bokk na ci wàllum théâtre ba nga xamante ne mu nga ci yëngu a nag yenn ci ay kàddu sax yu jógoon muy coowal fanweeri million di Sanex ak yenn ci ay kàddu yoo xamante ni sax mu ngi tukkee woon rek ci Sadag moom Serigne Ngagne nag daal nay andi ay leeral ci li ni mel waxtaan waxtaan wu yaatu rek ci carrière ba ak la nga ni sax moom mu ngi koy waaj rek leeral bu baax a baax coow ya nga xamante a sax daanaka moom Ablaye Diouf fa ñu ko xam ci Serigne Ngagne Taha déggoon nañ ko ci wax ci kaddu ya nga xamante ni kii di Kaliphone mu ngi ko doon wax rek gannaaw ñu daal di koy rek interviewé moom daal di nay dellusiwaat rek ci li nga xamante ni sax moom moo ko daal di rek tax ba muy dal ci kaw Ousmane Sonko bokk na ca ka nga xamante ni sax la njëkkee muy njiitu rew mi di Macky Sall loolu nag gannaaw laaj bi sampo moom nag mu ngay wax sax a ba muy attaqué rek njiitu réew mi di Macky Sall gis nañ na nga xamante ne noonu la patriot yi doon ko jàppale tamit. di dugg ci ay live am di partager ak moom rek la nga xamante ne moom lay xeex waaye nag dañoo nemmeeku ne moom dafa wëlbatikuwaat rek di dal ci kaw ka nga xamante ne moom moo di Ousmane Sonko waaye moom Californie daal nay andiwaat rek leeral li li ni mel di wax sax kii di Ousmane Sonko politicien la kon nag liñ naan ku boot bu ki xaj baw la yoon la ñu daal di dal ci kawam bu doxalul yoon ñu wax ko loolu nag nekkul sax loo xamante ni moom daal dinay gis ne rek lu garaaw la dafa fekk ne njiit moo demee noonu saa yoo jiite rek faaw ñuy wax ci yow waral moom bàyyiwul njiitu réew mi di Macky Sall waaye tamit bàyyiwul Ousmane Sonko naka noonu képp rek koo xamante ni dafay daal di yëngu ci wàllum politique te doxaloo yoon. ay kàddup Serigne Bass Abdou Khadre loolu nag jëm ci la nga xamante ni moo xewoon ca diwaanu Mbacke ak Touba mu mel ni nag ñoom ñu ngi koy ñaawlu bu baax a baax Serigne Bass Abdou nag taxaw tem rek ngir daal di xeex li ni mel bokk na rek ci di wax sax naan dootuñu nangooti loolu xew Touba ak Mbacke di fa xewati muy jàmmaarloo yi nga xamante ni daanaka nemmeeku nañ ko ci ñoom kilifa yi nag ñu daal di jóg rek taxaw ngir daal di xeex li ni mel bañ rek loolu daal amaat. foofa ca diwaanu Touba ñu daal di wax ci kàdduk Malick Gakou moom nag moom mooy njiital grand parti daal dinay àddu rek ci élection présidentielle yi nga xamante ni sax ñu ngi ko app nit ki ñaar fi fan ak juróom ci weeru février atum 2024 moom Malick Gakou nag daal di taxaw tem rek di wax ne sax moom dara mënu ko tere doon rek cinquième président de la république fii ci Sénégal loolu nag amu daal di koy teg rek ci ay conviction yu wóor waral rek moom njiital grand parti taxaw rek ne ni ki élection yooyu moom rek moom mooy doon cinquième président bu Sénégal yi nag ay confidence la tukkee ci ab waaye mu ngi am lu toll ci fanweer ak ñett ci ay at am nag jabar joo xamante ni atam mu ngi toll ci ñaax fukki at ak ñeent moom nag waa ji dafa daal di am lu ko métti lool ndax kii di soxnaam daf ko daal di terroriser gannaaw nag ba nga xamante ni sax moom kii di waajuram bu góor daf leen joxoon kër équipe ko defal leen lépp lu ca soxnaam waaye nag dafa jàpp ne ah, kii di soxna si daf ko daal di napp ah, moom amul a jàmm ca kër ga amu ca salaam ah, bu waree seetaan sax match kii di soxna si moom mooy bañ rek jàpp yeneen chaîne loolu nag mu jàpp ne sax ba seen doom bu jigéen juddoo ba tey lépp loo xamante ni rek moom moo ci war ci defar ak changer moom la soxna si di wax ne moom moo koy def mu nekk loo xamante ni lu métti lu muy dund ca këram la bokk na tamit di wax rek naan soxnaam sax ba oto bu bees rek moom mooy raxas oto bi lépp moom moo koy def daanaka daal mën nañu wax ne moom mooy sëy sëy bi rek waral nag ba moom mu daal di def rek ay confidence ci soxnaam soos nga xamante ni daal jël fitam rek ba nga xamante ni sax moom mooy diriger ca kër ga lu ko neex moo fay am lu ko neexul du fa am. wax ci accident bu métti ba am ca yoonu Bambilor loolu nag ñaari nit ñàkk nañ ci seen bakkan am ci juróom yu ci jëlee gaañu gaañu accident ba nag ab daje ak euh, auto particulier euh, Citroën C4 euh, ci loolu nag ba ñu mbëkkante ñaari nit ñoom ñoo ca daal di ñàkk seen bakkan juróom daal di cay jëlee gaañu gaañu ñu jeexalee wàllub tàggat yaram ak triste nouvelle Christian Atsu ma nekkoon ca diwaanu Turquie nekk joru gana moom nag gannaaw ba ñu ko wëre diir bu yàgg daal di nañ koy mujjee gis sax waaye nag gisaale wuñ ko bakkan maanaam dafa daal génn àdduna rek ci tremblement tremblement de terre boobu nga xamante ne moom moo amoon foofa ca diwaanu Turquie waaye nag mu mel a ba ñu daal di jëlee corps bi rek andi nañ ko ca dëkkam ca diwaanu Ghana daal di ko fay waajalee rek mu daal di doon funérailles yu triste yoo xamante ni Ghana yëpp daal di nañuy génn rek rendre ko un dernier hommage. wax ci doomu Sénégal bi di ma ne ni ki démb nag tàmbali na ay tàggatoom ci groupe bu Bayern bi gannaaw nag diir muy entraîné wu rek individuel duggaat satisfaction la am rek ak contentement ah, dellusiwaat ci terrain bi ah, gannaaw a gaañu gaañu bu yàgg boo xamante ni amoon na ko CAN ah, U20 ni ki démb Sénégal moom moo door rek ñii di Nigéria benn bal ci dara seen milieu terrain ba nag di Pape Demba mu ngay àddu rek ci match ba ñu def mu jàpp ne sax ne mënoon nañoo def lu gën li nga xamante ni rek def nañ ko démb waaye nag ñu leen di xaar rek ci yeneen match ya nga xamante ne moom moo nekk seen kanam jeexale jour Sénégal ya xamante ne ñu diwaanu Europe ni ki weekend bi eh, bokk na nag ca ñan ca mën a lim eh, muy Habib Diallo Ousmane Diouf eh, très solide dans son jeu ak ka nga xamante ne moom moo di Bamba Dieng ma nga xamante ne compteur biom ya daal dinayu ubbeeku rek ca clubam bu yees boobu bokk na ci Crépin Diatta Idrissa Gana Gueye ak yeneen joueurs yoo xamante sax daanaka brillé nañ rek ni ki weekend bi ci seenub club mbokk yi safoon doon ñu teewlu li lañ leen andi loon seen acte di leen ñaanal jàmm bañ a rete dara suñu information jërë ngeen jëf